dikkati na ana ñii ñaana laata jéng te doo daanu tribune yéen a kaay naan man bu yóbboo Amadou Ba dem dëkk leen loxo de ndax fi na ne bennoo moom jengul dafa weng fa yallaahu yéen a kaay bi dee média bi naan man te coalition boobee moo boot Amadou Ba moom coalition bi ci boppam moo daal di sëgg gësam te aatuma maa mën na yegg teer ñaan dëgg-dëgg moo mën a téye bennoo bokk yaakaar ba boppam bii du laal suuf fippu gaa ngi mel ni tulleeg maale te fippu gi dara andiw ko daal di ñaxtu nag tabb gi nga xam ne tabb nañu Amadou Ba mel ni ku naan Amadou daal daa mënul fa yallaahu xeer yi di ko dalee fu ne moom Amadou Ba Walf Quotidien naan kon déet Amadou kay mi ngi mel ni ku tëb dal cib xal dese na la gëneen tëb moom Amadou day yéeg ak di wàcc ni dollar bu yéegee ba gaa yi téen gaa yi naan kon wàccal ci suuf Amadou daal di wàccaat ci suuf tribune yéen kaay ne ko kaay ma xamal la yéeg beeg wàcc bi day kenn defu ko kudul coalition am nag di bennoo bokk yaakaar ñoom mouvance présidentielle yi kenn daa wóoluwul moroomam ba tax na Amadou Ba mi nga xam ne moom président Macky Sall tabal na leen ko sax ma ne la wóoluwun ko bennoo daal di nekk ci guddi gu bër setagul loo yoo xam ne fa yàllaaxu mën na leen ñàkkloo élection yi à tout moment le point yéeni kaay naan maan moo ne ña ngay ci Mame Boye ay nit de lu toll ci juróom-ñeenti délégué ak secrétaire général bu Mame Boye Diao ba waa APR daal di leen koy jël moom Mame Boye Diao daal di ñàkk ay élément waaye ñàkkit clé USB ba nga xam ne moo defoon ay parrainage am Vox Populi daal di xam le ni moom Doura Baldé moo fa jaar daal di foqartee Mame Boye Diao ay élément élément yi nga xam ni dem nan daal di xam le ni mani la vision ci boppam lañ gisul ca Mame Boye mu dem le peuple quotidien naan amul de gars yi nee nañu Adus Fall ci boppam dafa bëgg nax Amadou Ba ngir lekk alala waaye man la dub mandataire barki démboo ñaay la ñëw ci coalition bi naka lañ ko mën a wóoloo ba jébbal ko seeni parrainage xam nga ku gëm lii ba jël Adus Fall mii def ko mbër di nga màtt sa loxo wi cax la témoin yéene kaay naan man booba Anta Babacar Ngom a nga yëngal gësam Casamance lee a yéene kaay naan kon Déthié Fall toog fii ci Ndakaaru di wax Déthié nga naan lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaari junni yu décce ne banaa wutu parrainage yu bàyyee la ca des ña des ca opposition bi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre gii la ñuy xaar moom moo di Ousmane Sonko nag daal du duggaat ci liste électorale bi El Malick Ndiaye ci source a naan ko may ñu rek xam nga Ousmane Sonko gone yi liñ def ndakaaru gii def nan lu ko raw pare te kenn tëyewu leen te kenn toppewu leen sax wàllu terrorisme ñun suñu opposition bi dañ ci amul négocier moo tax nag ñu jàppee ñu ñu radical te ñoo tey El Malick naan Ousmane sunu candidat tey mooy sunu candidat ëllëg coow la mooy nag ndax la di set ko ko nangulee ni yor yor yéen kaay nan man en tout cas avocat Ousmane Sonko yi daal dina ñuy jébbal ab citation directe Thiendella la Fall mi nga xam ne mooy directeur général des élections celam leen lankal ne nag du leen jébbal ay parrainage Ousmane Sonko moomee Vox Populi xamal ma ne daal dinañ koy delloo Cap Manuel avocat am di kon ko naqarlu ne daal dinañ koy jëlee ca réanimation ba daal di jébbal Cap Manuel waa administration pénitentiaire ne déet Ousmane Sonko jébbaleem Cap Manuel bi ci boppam médecin moo ko daal di xamle ne mën naa génn réanimation mën naa delluwaat kaso Déthié ne leen kaay président Macky Sall ci boppam waree fa moom moo di bañ a tànn ceeb bi na bàyyi gaay yi daal di bokk ci élection bi Déthié Fall ci turbine yéen a kaay na ñu sérieux yi nag laa wax candidat yi nga xam ne yu sérieux lan na ñëpp bokk ndax Sall ngaari nag moom ñaari xeetu dàq ci élection la yor benn bi mooy yoon la lay kalaameel ñu daal di rëq sa ndigg ba ca des nag moom moo di parrainage yi lan lay najee doo bokk Déthié nan ko doy na rek naan ñoon ñu dolli la wis la te wis goo xam ne yokkub chômage lay doon wis boobu tëju daara yu kawe lay doon wis woowu yokkub njëg lay doon yi di fippu di dem di màngaani bitim réew lay doon 24 heures yéene kaay jox kàddu Mamadou Lamine Diallo mu mel ni ku naan ndaw yi nag ñoo yay dem de ndax ñoom ci boppam ñi ngi faatu ci yoonu barsa gi waxtu woowu moom sàll ngaari lam tooro ma ngay wuti am xëy ca France turbine yéene kaay naan kon moo ne gaay day tàyyi wunu ci wëral ko parrainage mani la Moustapha Junior Thiam coordonnateur départemental S2D bu Nioro xam le ni téeméeri junni la ñu bëggoon fi mu ne nag ñi ngi yootu téeméer ak juróom fukki junni ci parrain ñoom ñi ànd ak Souleymane Ndiaye daal di xam le ni dooleel ànd daal di dooleel Amadou Ba te képp koo xam ne yaa ngi def kéemtalaay kattan ngir yàq bi la liggéey da nga ko digleeg ñoom fa yallaahu ndax ñooro ci boppam ñoo daal di takku réew mi ko dañee daal di may xamal ne moom ministre du budget yi daal di nay takku daal di xam le ni lépp loo xam ne budget la léegi dañ koy méngalee ak jaww ji na muy daal di doxee le soleil yéen kaay naan man boobu président Macky Sall ma ngay rogo jéeru di xool waa Kédougou daal di yeesalaat Mako Kédougou Saraya ak Moussala tali boo xam ne na ci téeméer ak fanweer ak juróom benn ci kilomètre Bembu xosanto Sabadola ak Kayaan tali bi dox diggante Kédougou ak Salémata daal dinañ koy dalloo daal di jeexal ak njàqare tribune yéen kaay naan kon boo dalloo inauguré tegi xeer ba nuppi nga ñëw wax yow président de la république Macky Sall lii nga xam ne moo yitteeg sénégalais yi manifestant yi faatu nañ fi sakan lool ci coowal Ousmane Sonko li ba tey France daal di xidéem andi woo ci lu leer yeyoo yàbbi woo léttoo firi woo sàll ngaari leeralal beneen coow moom moo di nervi yi nga xam ne am nañ ci réew mi ñu gis leen nag saa bu manifester amee ñu génn caxat caxatee askan wi interview yooyee yéeyoo ci yàbbiwoo ci enquête amu ci kenn leeralu ci kenn bëgg nan yow Sall ngaari lam tooro balaa ngay dem daal nga leeral ñu lii turbine yéene kaay naan kon coowal covid 19 bi fu mu mujjee xaalis bi nga xam ne dañ la ko nettaloon sa gafa ne la Sall fajal askan wi rax ci dooli nag bu ñu xiif bu ñu mar ñu gis ni junni ci ay milliards tàbbi na ci loxol ñenn ñi ñi ca ëpp nag nekk say jëwrin wala it ñenn ñoo xam ne ñu ngi liggéey ak say jëwrin boobaak léegi France daal di xiddeem coowal covid 19 yi waxunu ci alal joojee askan wi moom ko askan woowee tey toog waxtu woowee ñu yoral leen alal ju ni président Macky Sall balaa ngay dem leeralal ñu lii turbine yéen a kaay naan kon ma ne la njëndug arm bi nga xam ne dañ ci taxaloon président nag ak ministère bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu alam bi yow Sall ngaari lam tooro bur waaye waay waay leeralal ko sénégalais yi ñeen fukk ak ñetti milliards yooyee mu daal di leer lëlëj ci réew mi ni wëñ daal nay bëri alalu askan wi daal di tàbbi géej daal di bëri te say jege ñaale lañ ciy daal di tudd caxat-caxatee géej ñu ci tudd say jege ñaale Sall ngaari bul nu bàyyee kumpa leeral nu lii fu mu daal di mujjee waxtu woow yéen kaayib dee média bi daal kuy lijjanti Sénégal ci boppam man laa xamul xale bii ab taalibe la saa bu fàqee ñëw lañ koy dunduloo maar day taali ba mu ñëwaatee xam ne tey sëriñam du ko may dara moom taalibe bi ci boppam moo daal di faat ci anamu ñaaw sëriñ bi nee na ngir fayu l'observateur nan kontes yaa ngi kii ab paala boo xam ne dafa bëggoon boole ña doon dem màngaani gaa yi daal di koy kidnappé dugal ci gaal gi ànd ak moom Barça yéen kaay bi naan man chauffeur bii yëpp ab xale bu jigéen dem ba ca digg yoon wa daal di tijji baraaketam ne xale bu jigéen bi téyel